yow diut di wut ngërëmal gisulo, yàlla ndax gisuloo seex bamba Jamar ji tax ñu ne kaxaraaru ki wote won magal gi fii Tuuba ba ñepp di feex jambar seex Ibra sangu borom daaru mo ken وقلبي له في عتاب الجسم تكرار sellam nga semmal na seeluk noon ya sëlsëli woon ngir suul ko mësta tawat te mësta bakkaaru bu dul woon ak moom ku gëm bur yàlla doo ko fésal mbaa doo ko gëm moo ni woon yàlla di xaaru tawhiid ju jar wax dëggantaan bamba rekk a ko am ngir luñ ko def weddiwul te woon na xamaaru nañ ko ay rabbu gas nañ suul ko door ko fetal tiifal ko ay fani fan tiiwul di sakkaaru tubaab ko dem ak moom jëm Gabon ni c'est bon bu egg ba tofa ànd ak ba makaru señ Bamba jël khalimam di kañ borom ba ko raful djublu rek sangam ba muxtaru allahu akbar allahu akbaru bambaay wa jawa bañ bañ yalla bañ mustafa bañ gay abraaru ayo na ya yaa bu soo ñàkkoo xorom raagaloo te bàkkuwoo ndam wo yaay ngeen ge abraaru ya mata xam mata gem yow ba maya mata am wajula am am na ngeen gi ndam ci kawub lambi waa day kaw tiwub lambi gaa suuf fobal sab sargal ko mbaa kon nga dal di soof kawub nga dal soof te kuñ mës di naw ci këmbër ba mbër mi ñëwee la fay ña juumoon ba mostarfal ja seen dënn yaa ngi ci suuf dafay mel koof moo xam ni jaaxal na gaa yëwey ku songoog tubaab bi daan ko yaaraw ca mbër ya fuuf na yam ci parparloo ka gam-gam le waaye cey ku sàggan ba léew toog moom dalay fel nga dal di bóof sëriñ santa seeloon démb nañ ko seeni mbir ña doon gantu xëy nañ boole ñee gàlle nañ ba loof dameel yam ta seel wuur ya ñayi nangu a ñabañ asalu te nañ ak mucc ña daa gantu ñépp xiif karaam ak borom tuuba gi gaañi mu tere nelaw ba nuy gaaru waaley kaddu ñoo tax mu jug di wax karaam ak borom tuuba gi gaañi mu tere nelaw bani gaaru waaleykat du ñoo tax ma jug di wax bu daam ka cim ndox ku koy tëkkalee ki jën kañaan jël na sab xol mbaate sam xel ba lépp nëx lu yàlla ak yeneen bay seere kuy weddi ak amam danga yàqu yàqoo tax ba ngay weddi may gu sax ku baayam demul maamam demul bamba dem ba ñëw bu santul bu muy gaaral ku gaaru mbiram torox ba muy tabbi géej mboolem samaam yaa ngi riigu fii bu del see ndam yu day ni dannan ko wax bàyyi ca dodaa songo daanu ak ña ba tey géwél yaa ngi di leen way ci bépp gox bu ndaanaan di daan sargal ko maa kon nga noppi far ku gaaru jaloorey bamba maa xam nga dootu sax karaam borom tuubaa dafay wéy te dootu fay ña daa fay ñoom ñépp dem nañ ci seeni pax ku woo aw ñoñam bañ wuy si muy wax waxul lu moy di gaaral jaloorey Bàmba leen ko purux ku bañay goneem xaaraani waa ji nara si njël amoo njël te bañ say doom di xaaraani mën la sax ku kabbar ci ndox kabbar ci kaw jéeri doorab dem ku koy sàkkalum kem juum na berlin ko doora wax ndaxam yibro faateek yibro faale rekk fuñ taxaw ku leen yërndu woon booy daw fa ngay bàyyi say carax ndaxam yibro faateek Ibra Faal rekk fuñ taxaw ku leen yërndu woon booy daw fa ngay bay say carax bu deeti tëkkaaleeti koo xam ne ay suqam dañuy daane waa day réew mi gaynde mënub sandax wa man yulqini fil bahari raw man li qurbati fali min ilaahi rawdu sayqi bamba ko wax ndamal bamba day waame wuy dotte waaju xam dafay génn taataan ay ndabam dootu ñàkk ndox te ngeen wàññi soseeg duur yi xaadim du séereloo ci ay taalu béem astam ku dul yàlla maa ko wax ku koy séere séeréel ko xadiimam li Mustafa ku bañ muy maay loo séeré yaa ko wax bismillahi barkeb borom Tuuba sëriñ bi meew mu neex mi mu nu nampal jik nanu doy nanu te moonu màggal ku mën la rekki nga man sew mbaate nga bew loo ab yonent bam bew say pexe mën la dee nu gëm sëriñ bi suñ xolaat dee ci ma lay nga sew mbaate nga bew loo ab yonent bam bew say pexe mën la dee nu gëm bi suñ xolaat dee ci bi borom Tuubaa nu doy te moo nu gàddu mooy ki nu attan moo cëral mam Abdu nun bootu nan mooy nañ ci daam bu yàgg ca la mur xarwaaxi loola mag borom Tuubaa soppu jëmmam di ko bége moo gën ci yàlla gépp jaamu gu tege borom tuba sopp jëmmam di ko bége moo gën ci yàlla gépp jaamu gu tege subur buur yàlla ne waaw yonentam ni waaw ku fi bañ ni waawaaw mbiram dal di ñaaw su yàlla ne waaw yonentam ni waaw ku fi bañ ni waawaaw mbiram dal di ñaaw sëriñ bamba maa soowul senn cam faral ngabbu sab nos te jébbal ko gaaw atum wam sa ség léegi nañ tayam di gàcceeli démbam renam dàq daaw ña daa takki njàngal te koy jéema lor ndaxam seeni jeexit saxul lépp saaw ñasam pooni koote ka daa nas bon amuñ ndam te laaluñ lañuy jéema dañoo mbëkk ciw doj ba seen bopp toj ñu yoñ jox le seen mbir wasaani pitaaw ña daa tëf ci wëñ di xancak di fas badam dellu seeñee palem seeni xaaw ña daa tëf ci wëñ di xancak di fas badam dellu seeñee palem seeni xaaw ña daa wër di daanak di rangoy tëndën asal tey bëggoon nañ di buurub jaxaaw mbërum yàlla maa ngi te maa koy wayal te duma deeti fendal ba bis bañ ma ŋaaw mbërum yàlla maa ngi te maa koy wayal duma deeti fendal ba bis bañ ma ŋaaw donuy Mustafa ngi tadif xaadimam te moo duy bagaanub ku fi ñëw di baaw ña doon baaw ba waameem walee kiinu nañ bu gantu waameem ba seen mbir di ñaaw te duma deeti fendal ba bis bañ ma ŋaaw donoy Mustapha ngi te defu xaadimam te moo duy bagaanub ku fi ñëw di baaw ña doon baaw ba waameem walee kiinu nañ bu gantu waameem ba seen ñaaw bu réew mépp maasee nangul ko yam bu réew mépp maasee nangul ko nu mel ni njanaaw bu réew mépp maasee nangul ko yam te jiital ko nu mel ni njanaaw sama mbër du puragal tire nañ koy fetal ak i yu nu yafal bëgg bakkanam te taxul fit wa dem taxuloon koo wedam ci di way yoon nenam dëgëral pas-pasam dafa kàbbar ci ndox bato nasaraan sëfëx ñu ni tey day ma bëx bile bis mooy bisam lambaraan ak gabon ñoom tukki bee tax ñu ñoŋ ba mu del see la toŋ ñane woon ci wetam Madu Bamba di mbër jàpp nasiraan si tër te génneewul gobar lile rekk doy na ndam Madu Bamba di mbër jàpp nasiraan si tër te génneewul gobar lile rekk doy na ndam li mu way yoon nenam gisaguñ cim kemam te ësël dootu am ku ko dab cim waxam ku ko booleek mbërëm bu nu peesee nga xam ni ka daani bañam du ka toogoon këram ku ko diiŋat torox fii ku fi lal der ci ndox bu ca tàbbee suruqu ñu dëjël ko dëjëm ba fi diiney wañax dëkke bëx bëx di bax ña fi woon gumba tëx ku ne dàq ko ruqam ba mu neexee ñu ñëw bëgg koo féete kaw ku ne naa maa fi raw di pa gaatub dënam mani noppee fi war ndax la sa mbër wax ca ndar mbind maa ngee du far ku fa dem teg bëtam Madu Bamba di mbër jàpp nasiraan si tër te génneewul gobar lile rekk doy na ndam Madu Bamba di mbër jàpp nasiraan si tër te génneewul gobar li le rekk doy na ndam fu fi lëg macce tol fii coya def ab dogal fu fi jullit di tal julli war koo gërëm mani 18 safar moom mi ñu teggil naqar kon nanu waajal ko ngir ku ca feeñ am ngërëm mani 18 safar moom mi ñu teggil naqar kon nanu waajal ko ngir ku ca feeñ am ngërëm mani dix-huit safar moom mi ñu teggil naqar kon nanu waajal ko ngir ku ca feeñ am ngërëm